Euh, gannaaw bañ ko sampee ci atum 2014 ci réewum Bruxelles nag tey festival bu film Bruxelles nag yëkkati nañ ko foofee ca Europe daal di koy indi ca Afrique nag Sénégal nag nekk dëkk bi nga xamante ne ni moom la ñu tànn ci sixième édition bi pour ñu màggal ko fi nag ki nga xamante ni bokk tey ci ñi ko samp daal di nay ñëw ci li tax ñu daal di koy jël jagleel ko réewum teraanga mi. mais Sénégal aussi comme ni ma ko waxee sànq ci salle bi ci conférence de presse bi dañu am aussi culture bu yàgg ci cinéma. ak ay nit yu xarañ si cinéma bi aussi donc wax naa ko sànq bu mel ne Sembène Ousmane xam nga kenn du ko xam ñëpp xam nañ ni professionnalisme ak li mu def yëpp ci cinéma pas sénégalais mais africain donc loolu moo tax bi ñuy réfléchir ñu ne ban dëkk lañuy ñuy njëkk dem ci Afrique ah ma ne man comme Sénégal laa xëy na aussi ak culture cinématographique bi ñu am ci li ma yaakaar ci Afrique Sénégal moo ci raw ci affaire cinéma en tout cas ci sama li ma jàngat xool ma nag kon nañu jéem a dem Sénégal xëy na aussi comme man sénégalais laa dina gën a yomb comme dañuy exporter benn festival bu nekk Bruxelles ñu war a ñëw Afrique pour une première fois ah boo nga war a nekk sénégalais aussi te nga yaakaar ne Sénégal ci domaine boobu ñoo ci raw ci Afrique en tout cas noir ma ne bokk kon xaaral ma dem Sénégal waxtaan ak ñoom xool ba xam mën nañ fa exporter délocaliser festival bi. compétition boobee sax nag gis nañ ne réew yu bëri dinañ ca daal di bokk. am na huit pays africains yu ci nekk après nag mu am film jeunesse yi ciné jeune donc aussi am na ay film Sénégal film Togo Cameroun donc film yi ñu jël yëpp dañu jéem a léegi nag film yi wut ko yombul. ci fàttali festival que ñoo ngi ko war a am fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom ñett ci weerub décembre.